naa tey li ñu gis ak ñi ñu gis ñuy ñuy ñuy euh, ñuy liggéey suñ xel war na dal parce que ay force réelle la sur le terrain ay force yu effective la parce que ay force yu nekk ak population bi la ñoo xam ni mosu ñoo xeex pour président de la république tey ñëw di ko xeex loolu moo tax ñu ñëw encourager force additive yooyu qui vont nous permettre de remporter cette victoire contente d'expliquer aux autres parce que aujourd'hui si vous avez vu bu ngeen seetloo activité yi am yi ñu def mat na douze wala treize mais ñooñu ñëpp daan yoon battre campagne pour président de la république ñooñu ñu engagé wu tey pour battre campagne pour président de la république et loolu mooy wane ni que pour cent yi ñuy wax dakaar du ay gént c'est réel loolu mooy wane ni que ñi bëgg a gëmloo nit ñi ni que way diw ñëw na diw ming may jàppale loolu méngoowul y une différence entre kooku un responsable politique boo xam ne ci télé rek ak rajo rek lañ la xam ak responsable politique bi nga xam ne dafa jiit waa goxam waa koñam waa commune am teraanga gu jar ñu leen di toppe ñu ñooñu la ñu dem waxal ñooñu lañ décidé euh, ñooñu la ñu persuadé pour ñu ñëw bokk ak ñun ñu réélire le président de la république Macky Sall donc ñaari yëf am li ma koy waxee 001 yi moom boo leen dajalee faaw nga am ci vingt pour am 1. ñun nag ay deux kii trois la ñuy dajale moo tax suñu xel dal lii xew Medina tey xew démb euh, HLM Padois euh, HLM Grand Médine ak Padois wane na ni que du ay caaxaan ñun li ñuy wax wane na ni que du ay jàppale dinaa diw jàppale dina diw moo tax seeni nit topp leen ñi téye woon seen base téye seen commune téye seen koñ ñooñu ñoo nekk di def campagne bi ñu bëgg pour renverser tendance su Dakar et ça sera effectif. waa tey day tey day ba tey day wax dëgg yàlla sànq maa ngi doon wax ak Abdou Ngiraan ak Martin ak Yacine ah, ak ak ak neuf yoo xam ni ci taxawu Dakar lañ demee ñu awee évaluer suñuy force liñ fi amoon ñoom buñ ci yokkoo. dëgg fa yàlla yaakaar nañ ni que dinañ egg 60 pour cent yaakaar nañ ni que Médina incha allahu rabbi bu fekkee liggéey rek ay fay dinañ egg 60 pour cent parce que ay nit ñu am maana ay nit ñu fi mën dara ñoo xam ne dañ fi daan am ay résultats yu baax ci amuñu moyen ñoo décidé ñëw jàppale président de la république. ah yomb na ba pare de li man ak yow ñoo ànd ci suba ba léegi est-ce que li ñu gis ay naxaate la est-ce que da gis ay car yu ñu jàpp est-ce que da nga gis ay car yu ñu indi koñ bu ñu dugg waa koñ ba lay génne ñu wax ak ñoom pactiser ak ñoom génn dem te bu ñuy dem dañ naan ñu dem leen ci jàmm ca xam ni seen xel dina dal yaakaar lañ ci am ñi ngi def lu ñu war yaakaar ni que ñoom dinañ def li leen war. Bamba Fall ma ni la et eh, wax dëgg yàlla tamit am na dara fii nii médina tekki na fi dara tey yàlla def na ay moroomu meeram ñëw nañ di ñu jàppale lémb li ñun li ñu gis Grand Médine gis ko fii Medina wax dëgg yàlla bu fekkee dëgg rek a tax ñuy wax opposition amatu fi moom nag waxagul ñu ngi koy ñaan mu ñëw wax def ni Banda Diop def def ni Abdou Ngirane def def ni Martin def def ni ñoom Soxna Ndiaye def def ni ñoom Yacine def tey c'est une réalité Macky gi réalité la bëgg dem bañ dem 2-0 kooku mënta ñekk